Cheikh Ibrahima Kayta sëtul Sunjata Kayta bi le roi de yow mii yaay wàcc sër fët xam nga ni yaa yor jinne yi yaay seefu jinne yi yaay xalifa général kull kuy faj jinne yow mii yaay wàcc xalifa général kull Manding xam nga ni yaay wàcc de maanaam mag dañ koy dégg ci yoon de waaye maa la gën maa la personnalité doo ko dégg de maa la loolu sa maam Sunjata Kayta moo yoroon ñeew buux garab ga barab ga garab ga avancé yow mi yaay waaji jërë ngeen jëf salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk CIK TV Senegal, mbokk Senegal. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen dokkee ci weeru koor ñu ngi waat fan fii ci kër Cheikh Ibrahima Keita le roi d'Afrique le roi Mandeng le ninki nanka de Sunjata Keita fii la lépp di antoo képp ku wër Sénégal fu ne nga dem fa faju fu ne mu tër nga ñëw fii nii mu sotti ci kàttanu yàlla mooy kan jëmm ji di Cheikh Ibrahima Keita tey ñu ñëwaat këram am waa juñ ci fekk sa waay gannaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay siyaar ah gis ne ni fi ñëwee woon ak ni nga ñëwee tey ute na ñu bëggoon xam tey lan moo lan moo moo nekk sa ñëw fii ci kër Cheikh Ibrahima Keita. waaw kër Cheikh daal mi fi mu fi mi njëkk a ñëw boobu ma toogee photo yi tiitoon naa trop trop trop ba àgg ci kanamu yàlla lool ma mi fi ñëwee bi ma ko waxee sama soxla mu ne ma duma ànd ak ragal duma ànd ak yàlla. Hmm. demal place bi da ko ubbi. Mm-hmm. léegi ci laa jógee ci laa jógee fii ma dem ba ma demee ñetti fan rek laa am. Mm-hmm. ubbi place ba ba tey jii ñama ñama ñama naan du ma ubbi place bi. waaw tey ñoo ñëw. nekk samay bi maanaam bi ngay ñëw fii yow lan moom la indiwoon bi ngay ñëw fii nan nga ñëwee. nan nga fi dikkee damaa bëgg damaa bëgg na jëkk a ñëw fii ba mënta damaa tëdd ba mu yàgg ma jël sama téléphone. tapé comme gis gis ko moom mi muy wax après ci laa jëlee numéro mm-hmm. ma woo ko. mu ne mën nga fi ñëw. Mhm. après bu fi ñëwee si laa ne ko ab place de la bëgg ubbi waaye sama mbokk nanguwuñ ko. Mhm. mu ne ma de loolu du dara. Mhm. si laa ko waxee mu ne ma demal nga ubbi ko. Uh-huh. mu demee ñetti fan laa dem ubbi ko. Uh-huh. Mm, ña ko ña ko na tey du ma ko ubbi. te ñoo gën a ànd ak man tey yi mais lan moo taxoon say mbokk ne doo ubbi place te ñoom juguñu wala jugoon nañ am déet ndax jaral loolu ne leen am déet ñoom lan lañ la wax ba tax ñu ne la doo ubbi place. seen bakkan lañ ci tegoon dañ ma envoyé uh-huh. message. bi moom mi wan naa ko. Uh-huh. mu ne ma jox ma seen numéro téléphone ma woo ko mu ne ko sëñ bi maa la ko ñaan jàpp ci rek uh-huh. man maa ko ñaan mais dina woon mu ne ko uh-huh. la ko ñaan après daal mel ne ma ñu ki may conseillé léegi lu baax maam daal ñu mel ne daal ñoom mosuñu am benn problème man daal a dëgg yàlla sëñ bi daa ko man daal man man man moom kontaan naa lool ba ci kanamu yàlla wax dëgg yàlla ni ma ko mën a wax maanaam yow ba ngay tijji place bi say mbokk dañu taxawoon ñu ne place bi doo ko fi tijjee waaw dañu mu jaral lu nekk moom kay lu leen leen jaral nga jaaxle dem fu ne. sëñ bu ne dem naa fa. nga mujjee fan ku ne seet naa hmm. ci moom mi laa mujjee. mu defal la. moom ma defal bagage wax di gaal kontaan naa. gis nga. gis naa teg naa sama bët kay. voilà waaw moom kay bëgg naa lool. ñu ko ñaan yàlla mu yàgg fi rek. te wér hmm. waaw. looy wax ñi nga xam ne dañuy jéem te mënuñu ñuy copier coller lan nga leen di wax sëriñ si nga xam ne dañuy wootee ne ñoom la te du ñoom nga dem ñu fay dem yëpp fii la ñu mujjee looy wax ñooñu noonu yow yow mi nga xam ne fu ne dem nga fa te nga ñëw ci Cheikh Ibrahima sa xol sedd. Ah, koy doy moom nag moom làmbatu nit ñi dañuy fu ne daan fa dem di làmbatu sama yi. Mm-hmm. moom fu ne ñu ngi dem di làmbatu di bu bari. Mm-hmm. te yàlla xam ne bu fa jógee day moog zéro ñooy am. Mm-hmm. man daal ku mën a xamal moom suñu Ibrahima Keita daal ku fi mën a ñëw. soxal dana sedd dana nga kontaan danga bëgg. man loolu moom maa ngi koy dimbalee sama mbokki taalibe yëpp man moom loolu xam naa ko moom moom de bis na moom moom keroog laa ko jàpp ba tey dootuma ko bàyyi sama àdduna. amoo ci réccu daal. amutuma kay man kay jàpp naa ko dootuma ko bàyyi. moom mooy. suñu Ibrahima Kayte mii. Ah. jàpp naa ko duma ko bàyyi. est-ce que dëgg waaw. bu neexee yàlla suñu borom maa ko jàpp dootuma ko bàyyi. Ah. képp ku ma xam. Ah. dinaa ko booleeg moom. jàpp nga ko jar a jàpp. waaw jàpp naa ko jar a jàpp loolu kay xam naa ko bu baax a baax. fu fu waaye jàpp te jàppul fii jàppul fenn day nax boppam man ku daa tëdd doo nelaw kay. nga dem bay tëdd bay biddanti léegi. kon sant ko yàlla. sant ak suñu ah. <laughs> Ibrahima kay dégg nañ euh, waa ji li mu wax. Mhm. wax dëgg yàlla xool sedd na kontaan na ku ko xool xam ne mbégte la fi ñëwee. Mhm. par rapport ak bi mu fi ñëw keroog ni mu fi ñëwee. Mhm. waaw ñu bëggoon nga ñëw ak ñun ci tuuti kàddu rek maanaam moom it ñetti fan yi la wataay rek. <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal gannaaw bañu ñu yalla Allah di julli ci yenen tamba di gërëm suñu suñu sunjata kayta le roi d'afrique le roi di mandeng man cheikh ibrahima kayta actuel khalifa de sunjata kayta le roi d'afrique le roi di mandeng ma ngi delu di sante yalla di gërëm suma suñu sunjata kayta li du gulet ya naa ñetti mana manam eh, maanaam dala daan yemmee léegi euh Iya la hmm. ndax ñetti fan rek nga fi gis cheikh ibrahima kayta ñetti ah. fan cheikh ibrahima kayta lolu ñaata la ñet cheikh ben ibrahima ñaar kayta ñet kay nga dem ci ñetti fan sa soxla sa aajo faju nga ah. ñëwaat fi ne ko cheikh bi gis na résultat alhamdullilah ki ah. dafa bëggoon ubbi place mu daw ci ñetti weer hmm. ay mbokam ne ko doo fi ubbee Mm-hmm. suñu bakkan lañ ci teg mu ñëw woon ma message bi dem na sëriñoo oh sëriñ mu ñëw wax ma ko di xaf-xafal ma ne ko eh! uh-huh. man Cheikh Ibrahima Keita uh-huh. la ninki nanka suñ jata Keita ànd ak ragal uh-huh. dalal demal ubbi ko ci barke Sunjata Kayta ci barke Mandem dara du la ci fekk mu jox ma lam ma war a jox ma noté dem ñaka daan xeex tey jii ñoom ñooy ñëw di ko conseiller naan ko place bi noonu la góorgóorlu jaayal. waaw. du ma guddal wax tey damay gàttal wax ndax. kontaan nañ. sant yàlla alhamdulilah tàllal loxo yi ma ñaanal. dugg leen. bismillahi rahmaani rahim. amiin barke Sunjata Kayta. amiin yaa rabbi barke Sunjata Kayta. amiin barke Mandeng. amiin barke sama maam Bilal ibnu Rabah. amiin yaa rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammadi al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqima waa ala alihi xaqa wa mihdaaril azim barki TV gis ngeen ko de gisati ngeen ko kookoy Cheikh Ibrahima Keita mooy kan le ninki nanka de Soundiata Keita le roi d'Afrique xalif général Soundiata Keita xalif général kullu fajkat képp kuy jinne képp kuy faj jinne sa seefa ngi toog sa buur a ngi toog jërëjëf Cheikh Cheikh sëtub Sunjata ak tayta bi le roi de yow mii yaay wàcc sër fët xam nga ni yaa yor jinne yi yaay seefu jinne yi yaay xalifa général kull kuy faj jinne yow mii yaay wàcc xalifa général kull Manding xam nga ni yaay wàcc de maanaam mag dañ koy dégg ci yoon de waaye maa la gën maa la personnalité doo ko dégg de maa la loolu sa maam Sunjata ak moo yor woon ñaaw bokk garab ga barab ga garab ga avancé you mean I was?